Mercato mbokk yi nga xamante ne yee topp MK TV di seen télévision bu mag bi nekk ci jumaa yi Sëñ Tuubaa ju mag ji nekk Touba ñu ngi leen a xamal ne ñu ngi fii doon mottali li nga xam ne moo desoon ci liggéeyu màggal gi te mooy waxtaanee li nga xamante waxtaan li nga xamante ne Cheikh Mouhamadou Bachir moom Sëñ Abdou Khadir mi yor kàddu sëñ sëñ Mountakha doon na ko def ci mooy cérémonie officielle bi ànd ak ñi nga xamante ne ñoom la ngóor gi yabal Antoine Félix Ndione jiite woon leen waxtaan am solo woo xamante ne na fi. ak ay discours waxtaane mboolem kilifa yi nga xamante ne jugee nañ ci ay réew ñëw teew fii nga xamante ne fi lañ nekk boo leen di leen di di leen di leen di di di doxal di di di leen di leen tatagal ñu nekk ay eh, gan yoo xamante ne bàyyi nañ fu nekk ci adduna bi ñëw teew ci sant gu mag gi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa santaane woon adduna bi yëpp boo digloo délégation yi nga xamante ne lim nañ leen ci biir eh, cérémonie officielle bi te Euh, journaliste bu mag bi di ab taalibe Serigne Abibou Mbaye doon leen lim da nga xam ne mboolem goxi adduna bi ak fooy mën a nekk ànd nga ak Serigne Touba mbégte nga xamante ne moom mooy sant yàlla gu mag gi nga xamante ne santaane woon na ne bis bu del see képp koo xam ne sa mbégte sama mbéga nag ma ci sant la yàlla sa borom daayira muqaddamatul xidma yoroon eh, teewal délégation yi nga xamante ne ñoo jugee ci kër kilifa diine yëpp doon liggéey liggéey bu ci bi nga moom moo doon leen dalal leen waaye def mise en place bi xool kilifa yi diine yi nga xamante ne ñoo fooroon nekk ñu xaal fi ñu war a toog ñu daan leen fi dalal ñu teew fi am na kenn kilifa koo xamante ne ci seen mooy mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoo seq liggéey bi ñu ànd ak ñoom mu liggéey bu ama am solo boo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma def na ko am na kenn ci kilifa yi koo xamante ne mën nañ koo jox kàddu gi muy sëriñ Abdoulahi Diop. nekk kenn ci secrétariat général secrétariat général di adjoint mën nañ ko jox kàddu gi mu waxtaan mu waxal ñu liggéey bu mag bi nga xam ne bu am solo bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul ma doon na ko taxawee ci màggal gi ci biir jumaa ji waaye ci gani Sëñ Tuubaa yi nga xamante ne ñooy kilifa diir yi nga xam ne ñoom ñoo leen dalal indi leen def mise en place ci cérémonie officielle bi ba muy jeex nii tey sëñ Abdoulaye Diop. waaw ah, jërëjëf sëñ Amdi maa ngi lay nuyu bu baax di mboolem téléspectateur u MKTV ni nga ko waxee mu xaddamatul xidma taxawaay bu am solo la am ci màggal gi ndax xam ngeen digal li mu amoon ci jumaa ji ci taxawu ko te jumaay Touba euh, képp ku ñëw ci màggal gi bala ngaa def dara li ngay njëkk def mooy ñëw ci jumaa ji ziar te mbooloo mu bari ma fa fi tejee tax na mu xaddamatul xidma jëloon ay mesures ci taxawaay bi ci organisation bi waaye bala maa ñëw ci loolu sax lu jiitu màggal gi xam nga safar bi bu teroo rek Moukhaddamatoul Khidma li muy njëkk a def mooy entretien wu jumaa ji lépp loo xam ne yàqu na ci jumaa ji muy lamp muy ventilateur muy lu mën a doon dañ koy entretien buñ ci jógee dem ci ah, euh, activité culturelle yi activité culturelle gis nga tey ren def na ñeenti conférence yu am solo yoo xamante ni euh, euh, ci waxtaane ay points yu am solo waaye conférence bu mag bi nga xam ne moom lañ daal waajal dem màggal gi waa commission culturelle taxaw nañ ci au delà de loolu am na benn exposition bu am solo boo xam ne yaakaar naa tey ñi dugg ci jumaa ji jëriñu ci exposition boobu te ren ñu jagleeloon ko maam Thierno Birahim Mbacke akub liggéeyam ci jumaa ji ak ci yoon wi Ah, euh, yaakaar na exposition boobu tey bu ñu waxoon nombre visiteurs yi nga xam ne ñoo ko visité euh, jëriñu ci liñ fiy def ci historique gu jumaa jeeg yu ni demee yaakaar naa lu rëy lay ay junni junni lay doon waaw waaye bu loolu weesoo nag nga wax nga ko léegi am beneen taxawaay boo xam ne Moukhaddamatoul Khidma daf koy def te ñu dénk ko ko muy ci commission organisation li ñuy wax accueil hébergement dalal euh, teeru ak dalal gani kilifa diine yi nekk ci biir réew mi loolu itam am na équipe boo xamante ni wàcc na ko fa lu ëpp 35 personnes diggante kër Sëriñ Touba gii ci euh, Touba mosquée ak ba nekk ci Daarul naan ñoom ñoom la taxaw ba ni ñu ñëwee ci organisation cérémonie officielle bi kon daal ci tënk euh, mën nañ ne lépp li Moukhaddamatoul Khidma tegoon ci ab liggéey ngir waajale ko màggal gi muy pendant et après loole lépp mu xaddamatul xidma euh, euh, taxawal na ko waaye du ñu far ci itam nag couverture médiatique bi nga xamante ni def na ko ci biir jumaa ji te MKTV ak mosquée touba point org mu ànd ak Serigne Djili Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne moo ca nekk ànd ko nag ak mboolem journaliste yi nga xam ne dañuy ñëw ci biir màggal gi danañu ñëw adressé wu ci ñoom ñu accrédité leen bañ mën a def liggéey bu am solo kon daal sëñ Amdi ci tënk liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma mbooleem lu mu tegoon loola lam remplir nañ ko ba mu mat cinq cent personnes plus de cinq cent personnes la ñu euh, déployé woon ci biir jumaa ji yaakaar naa gis benn image boo xam ne gisoo ci image wu euh, membre Moukhaddamatoul Khidma yaakaar naa ne yombul loolu lépp ngir sécuriser ak sàmm ndigal li nga xam ne moom lañ leen joxoon mission bi nga xamante ni moom la ñu waroon amal ci jumaa ji assistance infirmerie bi ma ko fàtte ci wàllu santé muy innovation bu am solo muy benn infirmerie boo xam ne dañ ko ci biir jumaa yaakaar naa bu ñu waxee nombre euh, patients yi nga xam ne faju nañ ci itam dafa doon yu am solo yoo xam ne euh, extension bi nga xam ne def nañ ko ci ren yeesalaat barab bi yokk nombre de lits no yokk matériel médical bi euh, te Cheikh Mouhamadoul Mountakha joxe woon ci ndigal bañ def ko loolu itam ñu ngi ciy gërëm bu baax commission sociale ak santé bi nga xamante ni sëñ Abdoulaye Boussa Mame Assa mooy def ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne def na ko ca Euh, jërëjëf sëñ Ablaye ci leeral yu am solo yooyu nga xam leeral nañ ko mën nañoo am geneen kilifa boo xamante ne moom ci membre membre fondateur yu daayira Muqaddamatul Xidma ci la bokk ngeen ràññee ko lool waaye itam mu nekk koo xamante ne daa jonjoo ak liggéey bi waaye itam jonjoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy saafonte ak liggéey bi mu man cee leeral leeral yu am solo ci taxawaay bu mag bi nga xamante ne daayira Muqaddamatul Xidma amoon na ko ci biir juma ji ci biir màggal gi nga xamante ne moom lañ doon waajal màggal suñ Tuubaa gi ne ko sëñ waxee Euh, ci waajtaay wi ci biir màggal gi ak bañ toll fii ci cérémonie officielle bi sëñ Alaaji Fallou Ndiaye nan nga gisee liggéey bu am solo boobu nga xam ne moom la daayira Moukhaddamatoul Khidma doon taxawee. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant gërëm di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa taxawaay bi mooy taxawaay bu rafet rek bi nga xam ne bi ñuy sos daayira bi loolu rek lañ jublu woon ci ndaw yi nekk Touba mën a taxaw xam ne alal ji seen alal la ñu sàmm ko booba ci loolu lañ taxawee woon ba sàmm loolu ba taxawal daayira bi moom Moukhaddamatoul Khidma kon tey jii bu loolu amee ñu ñëw taxaw fii yàlla def nu bokk ci liggéey bokk ci membre fondateur yi mu ne man na ñeent ñeenti nit ñi njëkk a fondé mm, euh, xidma man mi ca laa muy ma mën cee ràññee sëñ Abdoulaye Bousso Muxtaar sëñ Abdoulaye Bousso mu talib Alaaji Fàllu njaay ak Serigne Cheikhouna Diatara yàlla na ko yàlla dooli leer ñu defe naa ni ñun ñi ñoo njëkk a waxtaane daayira Moukhaddamatoul Khidma di ko taxawal di ko taxawal ba tey yéen ngeen ñëw taxaw ci taxawaay bi ngeen ci taxaw bu am solo bi liggéey ci liggéey bu am solo bi daayira bi di liggéey liggéey boo xam ne nii kenn ku nekk xam na ne boo ne daayira Moukhaddamatoul Khidma rek ñoo xam ne Grande Mosquée Touba la nekk di liggéey liggéey bu rafet ci yemaluñ ko jumaa ji rek waaye ñu yemal jiw dem ba ci janaasa yi muy fi nga xam ne way way làqu yi fa lañ leen jëmee loolu lépp ñu boole ko seenu liggéey di leen taxaw taxaw bu rafet di taxaw itam masajid yi nekk ci biir dëkk bi di formé waale euh, ay imaam yi fa nekk di formé wàllum noddukat yi di def lépp muy liggéey boo xam ne daal la Serigne Saliou waxoon ban fa demee nenu mbir la moo xam ne Serigne Touba yéen la ko fi loon waaye lu ma sonn ñàkk waroon a mën a mën a am bu yàgg la waaye nag Serigne Touba yéen la ko fi denceloon kon loolee moo ñëw tey ba war na tey màggal gii dem a dem ba nga xam ne tey bu màggal ñëwee ñu taxaw ci taxawaay bi mu xadimatu xidma taxaw ci taxawaay bi kon loo lu am solo la loo xam ñëpp waaye damay wax ne tey jii ku gis cérémonie bii mu ñëw da nga xam ne tey ki màggaloon jumaa ji defoon jumaa ji muy Cheikh Mourou Fadal moom la jibbu si waat ndax moom la ñu waral ñëpp mu def ku gis lii cérémonie bi seen bi ñëwee amee waat fii nga xam ne fi la Cheikh Mourou Fadal daan toog di def nu jàkkaarloog ku mag yi tey ñu indiwaat ko fii loolu liggéeyub Serigne Touba te jumaa ji ñuy liggéey ba tax ñuy wax Serigne bi moo ko mottali ba julli ko ba mu toll fii mu toll kon nag ñi sant ñëpp sant waa mu Moukhaddamatoul Khidma jiital ci ki nga xam ne tey mooy bu jiite muy Serigne Afia ak mboolem membre yi nga xam ne ñooy liggéey ci mu euh, Moukhaddamatoul Khidma nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew ñëpp kenn ku nekk gis nañ sa taxawaay yal na yal leen yàlla fay yal leen borom jumaa ji fay yal nañ ko yàgg a taxawee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Alaaji Fallou Ndiaye ci kaddu yu am solo yooyu nga xamante ne yëkkati na ko mu mel dellu si na ci historique gu nan la daayira bi fondé woo waaye nag li sëñ Ablaye Diop leeral mu nekk ci loo xamante ne waxtaane na ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ci Agri Zoomé daayira bi dana ko taxawee ci waajal màggal gi waaye ci biir màggal gi ak ni nga xamante ne noonu la ñu ko tëjee tey ci cérémonie officielle bi di siyaar ñëpp di ñaanal yëpp ñu fekkewaat ay màggal yu bëree bëri te bu ñëw dàq ba nga xamante ne moo ko jiitu woon eh, teñ ci ànd ak ngërëmal Touba di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu fekk la ñu kaat yu bëri ci barkeb suñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh